bokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu boolem jaamu gi ciy def di ziyaara ak di nuyu sëriñ bi di ñaan yàlla yàggal ko fi ba mu àggale mboolem mi tañ ànd koog moom bokki jullit yi tey dañoo del si nag ngir fàttali sunu bopp ak fàttalente li nga xamante ni borom bi tabaraka wa taala def koy sàkku ci ku gëm yàlla ku nekk la ca jiitu mooy ragal ko te ragal yàlla mooy tënku ci ndigal ak bàyyi tere daf ñoo digal ñu ragal ko ak ñu jaamu ko ak di sellal jaamu gi di ko def ngir jëmmam te dëppale ko sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax dafa mel ne ak jaamu yàlla ngir julit bi yaakaar ne nangu nañ ko wala danañ ko nangu la ca njëkk mooy bu mu ko tëñaxu na jàng ba xam nañ koy defe lu ñaareel ba itam na ko def tam dëppoog ni ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daan defe bu mu fent yoonu boppam bu ñetteel ba itam na ko def ngir jëm yàlla borom bi nag tabaraka wa daf ñoo noppal bam ñu waxee lu tax mu binduñu te mooy ñu jaamu ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun bi ñu xamee ne looloo tax mu binduñu mu mel ne dañoo gëlëm laajte ne bëgg nañ laa jaamu yow borom bi ndax looloo tax nga binduñu ñu waaye nu ñuy xamee nuñ lay jaamu borom bi wëlbatiku joxoñ daal ne muhammad rasulullah Muhammad mi ngi noonu ndawal yàlla la maa ko yónni lu mu leen wax maa ko wax lu leen jëfloo maa ko maa leen maa leen ko jëfloo yonent bi alayhi salaatu tam def na loolee borom bi sàkk woon ci moom te mooy mu leeral nu ñuy jaamoo yàlla mu leeral ko ci sunnay waxam ak sunnay jëfam wëlbatiku julli ca kanam saxaaba ya ne leen sallu kama raaytumuni usalli nii ma doon jullee dee leen jullee nii kon nag yoon we yooyu ñuy jaar ngir xam niñ koy jaamoo yoon wa ca gën a jub gën caa gàtt mooy sàkku xam-xamu diine ndax ci xam-xamu diine ci la ñuy xamee nu ñuy wéetale yàlla tabaraka wa ba man koo jox lam yayo ci xam-xamu diine ci la ñuy xamee tawxid jooju nga xamante ni ci la ñuy joxe yàlla cër bam yayo xam ne fële la beru moom yàlla mbindeefam yi beru fale nuroowut ak ñoom dara ndax lay sa kamis li ci xam-xamu tawxid boobu nga xam ne ci xam-xami diine yi yi féete kaw la bokk ci dañuy xamee nu ñuy nafaraate sunu gëm yàlla ba xam nañ ko gëmee noona wala déet moo tax nag nit ñu baax ñépp dëppoo nañ ci ne tawxid te mooy wéetal yàlla mooy tàmbali képp ko sóobu yoon wa ngir bëgg a baax waaye ku ca sori itam mooy mujjantal ga te jeexit joo xamante ni nit ku baax daana ca jaax jaar ba mën a am ak kawe ci ay jëfam ak waxam la ko laytaay mooy tawxiid te mooy wéetal borom bi tabaraka wa taala moo tax sëriñ bi radiallahu anhu yàgg cee soññee bëgg ñu xóotal sunu gëm yàlla loolu itam la seex Muhammadul Muntaqa yàlla na ko fi yàlla yëggal yàggal di ñu soññi waxtu wu nekk ci ñu xóotal wéetal yàlla ci suñuy xol ngir xam solo sim am moo tax sëriñ bi Tuubaa radiyallahu anhu waxoon ne xam-xam yi ci ëm ëpp njëriñ ci xol yi mooy xam-xam bi lay xamal yàlla tabaraka wa taala moo ci jiitu te mooy xam-xamu tawxid ak xam-xam bi lay xamal noo koy jaamu wa afyadul ulumi lil qulubi ilmul ubudiyati wa rububi mu mel ne itam moom sëriñ bi waxoon na ne waru gar wi njëkk wi war ab jullit te di taalibe mooy mu fexe ba am yóbbal bu doy ci ni muy wéetal yàlla tabaraka wa taala xam-xamu tawxid boobu itam mooy def jullit bi mu am yitte kawe yitte ju kawe jooju yitte ju kawe jooju nga xamante ni sëriñ bi yàgg na cee soññee ci wal himma tarfa kullaha lil xaqi wakil bi azzin la tamit lil xalq nee sa yëg sa yitte yëpp na nga jëmale ci yàlla tabaraka wa taala daasaat yitte yeeg pas-pas yi bam gën a dëgër te jëmale ko ci yàlla ak ci lu ko neex te wakkilu ci yàlla may nga xam ne mooy aji tedd ja te bañ a jeng jëm ci mbindeef yi tawxid boobu itam nag sëriñ bi daf ko yitteloon lool ba tax am na ñaari way yoo xamante ni lim làmboo ci tawxid rëy na ci ku ba ci njëkk mooy allahu mawjudun bi xayri mujidi sëriñ bi nee na yàlla ku am la boo nangoo ne ku am la ba noppi nang ca teg ne bi xayri mujidi amut ku nekk ca ginnaaw amam ga ba sabab amam ga yàlla moo jiitu ci luy am te amut ku nekk ca ginnaawam ba sabab amam googee fa innahu mujidu kulli mujadi boo xamee ne yàlla moo fi jiitu woon te moo mu jiitam na nga xam ne itam lu am ginnaawam ca amam googee la ko amale kon lu dikk ginnaaw itam mbindeef nga moom mooy aji bind ja moom yàlla allahu kaamilun mukammilun siwa mu teg ca ne yàlla mooy aji mat te ko gis mu manki yàlla moo lay mottali wal kawnu kulluhu lahu wa ma hawa àdduna wërngal këpp mi ngi ci loxol yàlla tabaraka wa taala akbar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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا bismillahi irrahmaani irrahim kon ñaari bayit yooyu nga xamante ni day jàngale tawxid ju mag te sëriñ bi baaxew ñu ko dafa bëgg ñu tënku ci te teg yàlla ca barab bam yeyoo moom na ginnaaw lum ñu digal moo ñu cee jiitu moo tax mu wax ca xasid ak ik fi nii ne antal kabiru lazi baanat kabaaratuhu li qutta minka yow yàlla yaay aji rëy ji aji màgg ji nga xamante ni ak màggaayam bir na yàlla na nga ma wammatal tuyaaba ji gën a rëy xam gim xam borom bi itam tabaraka wa taala te di ko jaare ci xam-xamu tawxid tam moo xamal ne lu borom bi def danga ko war a nangu ndax cib dogalam la ko defe kon mu ne fu dogalu borom bi jëm na nga jàng jëm foofee te bañ caa am naqaru xol fa xaysuma yajri qadaau rabbi fa min lahu duna turabil qalbi xam-xamu tawxid boobu itam moo lay xamal ne man nga ñàkk lu ne am lu ko wuutu góorgóorlu ba am lu ko wuutu man ngaa ñàkk ku ne góorgóorlu itam ba am ku ko wuutu ba mu des yàlla mbindeef mën naa ñàkk lu ne am lu ko wutu mën naa ñàkk ku ne am ku ko wutu ba mu des ñàkk yàlla bu xasee ñàkk yàlla amutut ku ko mën a taxaw taxawaay boobe is kullu ma faraqtahu talqa badal minhu siwa xaaliqikal muudil amal moo tax sëriñ bi itam xam loolu ba woon yàlla day yoway kilifa gu màgg gi nga xamante ni man sax jéemu maa sàkku ku la wuutu ci man antal waliyu lladi laa abtaxi badalan lahu wali kunta bi tamin yallaahu ca xasiid ak ik fi ni xam gim xamoon borom bi te jox ko lam yayoo ci daraja ak gëdd taxoon na mu ne ki la mën a jox wala mu lay xañ kenn dong la te mooy du mi def inna alladi yulika manan aw darar huwa ilahuka taala la bashar xam gim xamoon yàlla itam taxoon na mu xam ne ci yàlla moom rek lañ wara a wéeru waaye waruñoo wéeru ci mbindeef ndax nee na mbindeef koo xam ne munta jariñ boppam nu muy jëriñ jariñe moroomam wal xalqu laa yanfau nafsahu layaad fa kayfa gayrahu idan min al ibad ba mu xamee loolu itam moom sëriñ bi moo tax yàlla moo mee di aji tedd la wax ne ca tedd ngaam jooje lay sàkku waaye du ko sàkku ci keneen ku ko kooku anta al azizu allazi abri bi izzatihi izzan yu lit takrima yallaahu ca xasiid ak ikfin yi mu wax ci téereb tasawudu sixaar ñaari bayit yoo xamante ni yu rëy rëy la te doy waar te jara settantal te jéem koo jëfe dafa wax ne war nañu gëm gëm gu wér cëng ne annal athara li rabbina nee na jëf ak jeexit joo ci àdduna si ca yàlla la jóge wala yakunu lil wara nee na jëf wala jeexit joo gis ci àdduna ci yàlla la jóge waaye jóge wut ci mbindeef yi ndax borom bi itam wax na ci suratu saafaat laaye juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ne wallahu xalaqakum wa ma taamaluun yàlla moo leen bind benn bind seeni jëf kon nee na na ngay jéggi mbindeef yi te xool ka bind mbindeef fi nga ne ko gën ñoo leeral mu ne laysa yakunu fi jamii al alamin muathirun fi atharin ma dal yaqin nee na mboole mbindeef yi amut ku ci jeexiital koo xam ne jeexit ja jëf ja dafa tàmbulee ci moom yem ci moom lu dul ne dafa neex yàlla jaaree ko ci kooka nee na mënoo koo gis nee na jeexit ju mën di noonu fii asarin ma jeexit joo mën di gis nag laa wax jëf joo mën di gis ca yàlla la jógee jógewut ci mbindeef mu ne daal lii ma la wax al mooy li wér bu ci werante loolu ku ko jàng xam ko gëm ko da ngay xam ne lu xew ca yàlla la jóge kon nag jullit dëgg-dëgg jullit dëgg-dëgg jullit bay aji bu dëggu-dëgg laa yaxaafu illa allah yàlla rek lay ragal wala yarju illa allah yàlla rek lay yaakaar wala yastaki illa ila allahi su amee njàmbat ca yàlla rek la koy diis moo tax sëriñ bi tënk ko ci laa tastaki lxaajaati lil xalaayiqi bal mil biha ila alqadiri alxaaliqi nee na say aajo bu ko jàmbat mbindeef yi jàmbat ko ka bind mbindeef yi bal mil biha ila alqadiri alxaaliqi say aajo bu ko jàmbat mbindeef yi jàmbat ko ci yàlla may aji am kàttan moom mo moo xam ne moo bind mbindeef yi mu teg ca ne boo amee xam-xamu tawxiid te soree ci noonu ci ngay xamee ne loraange ak njariñ ci loxol yàlla la nekk waaye du jóge ci mbindeef moo xam muy nit ku weex wala nit ku ñuul ad durru wan naf min arrahmaani laysa min albidaani wassudaani bam xamee loolu nag la wax ci xasiid ik fi nii yow yàlla yowee ki nga xamante ni ci yow lay wakkiilu bàyyee la sama mbir yépp te doy nga ma doyloo naa la su ma dee xëcc njariñ ci yow laa ko yaakaare su ma dee jariñ loolaa nga itam ci yow laay yaakaar nga jañal ma ko antal wakiilu allazi qad iktafaytu bihi fi dafi wal jalbi yaa dal xalqi yallahu xam-xamu tawxid boobu ñu mu waxtu wu nekk boo ca soree ci ngay jox yàlla ab cëram ba ragal ko moom yàlla rek mu xamala la nag boo joxee yàlla ab cëram ragal ko moom rek ku dul yàlla daf lay ragal ndax ku dul yàlla rek mbindeefum yàlla nga boo joxe yàlla cëram ragal ko ku dul da lay jox cër ragal la fa xay suma taxaf ilahaka al ahad yaxafka min xawfikahu kullu ahad xam-xam bopp tawxid boobu mooy jox jullit bi xel mu dal ak xol dal ba du fér-féri du jàq ndax day xam ne dund ak de mi ngi ci loxol yàlla wërsëg itam mi ngi ci loxol yàlla wa faragal mawla min arbain ajal wa xuluqin rizqin wa xalqin ajal ku gëm di doo ragal de ndax ci loxol yàlla la nekk ku gëm di itam doo ñàkk ba saalit ndax da ngay xam ne wërsëg ci loxol yàlla la nekk te kuy sàkku nag loo xamante ni borom bi dogalul ne da ko am doo ko jot man ngaa wër àdduna wërngal këpp daj coono bu bu ku nekk du kenn du daj ba noppi doo ca jot moo tax sëriñ bi noonu fa kullu man talaba maa lam yaxluqi maa lam yuxlaqi taibatu la dahrihi lam yurzaqi moo tax ñu war a rafetal sàkkiin bi ni ñi sàkkoo nañ koy rafetal looy sàkku nga di ko sàkkoo ci ngor te xam ne lu yàlla dogal doo ca jot lu mu dogal te muy sa wërsëg kenn mënu la koo xañ loolu tawxiid moo la koy jox mu ne wala yakunu gayra ma yuridu walaw xarasta ayyuhal muridu loo bëgg bëgg mbir loo ca sonn sonn sonn bu yàlla nammut ne loola du am loola du am bu ne da ca jot tam dang nga jot wala yakunu gayra ma yuridu walaw xarasta ayyuhal muridu te mu ne yàlla moo muukat dañ koy waxoon loraange njariñ ci loxoom la nekk kon na ngay moytandiku ay tereem tey topp ay ndigal ndigalam wa minhu yati naf wa durru maa fa nahyahu sanib wa amrahu baa mu teg ci ne mboolem mbindeef yi tam buñ mànkoo woon ne dañ laa bëgg a jariñ te yàlla àndu ca duñ ko man mu jeexal wax ji ne buñ bëggoon a yëngal wennaw fepp sax te génne ca yàlla nee na woow fepp duñ ko mën a buuse duñ ko mën a randal walaw ala nafika xalquhu istama lam yaqdiru awdu alayhi in mana bal law tamalau ala tahriki li darratin faqat ala tasriki duna iradatin min arrahmani la ajasu anhu bila tawaani kon mu ne lu la dal lu la dal lu la dal na la wóor ne yàlla bëggutoon mu moy la waaye lu la moy itam yàlla bëggutoon mu dal la yii yëpp nag mbokki jullit yi boo gisee ñu koy wax la ñu koy xamal mooy xam-xamu diine bi ñu sëriñ bi woo ba tax muy tabax ay jàngukaay di wax ne nañ jaajuwaat ci xam-xam ndax ci xam-xamu diine boobu ci nga mën a xamee nooy laabeeg nooy jullee ak nooy woore ak nooy natte asaka ci ngay mën a xamee jikko yu baax ba mën caa tënku ci ngay mën a xamee safaan ba itam ba mën koo moytaliku ci ngay mën a xamee lu la amal njariñ ci ay wax ay jëf nga mën koo jëf wala nga mën koo wax la amul njariñ itam ci ay wax ak jëf nga mën koo moytandiku ci ngay mën a tënku ci la yonent bi ne bokk na ci lay rafetal lislaami nit ki mooy mu bàyyi lu amul njariñ ci ay wax ak ay jëf min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani ci ngay mën a xamee itam ne julli dëgg-dëgg na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxe woon la mooy ka téyel mbokki jullitam aw làmmiñam téyel leen ab loxoom du leen wax wax ju ñaaw du jëf-jëf ñaaw jëme ci ñoom waaye itam nag bu leen waxul wax ju ñaaw da leen di waxal wax ju rafet bu leen jëful jëf ju ñaaw jëmee ko ñoom day jëf jëf ju rafet jëmee ko ci ñoom waaye celleer yi kese te war a mën a wax te boo waxee mu am njëriñ itam wax ge moo am njariñ kon kon yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy am tawxid jooju te li sëriñ bi digle lépp itam sunu borom xiir ñu ci te musal ci seytaane te yàggal fi sëriñ bi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 واشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه من سيء ذنوبنا ونشهد أنه الله الواحد في ذاته المنزه في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 laa tazaalu taxudduna ala aliqbaali ala alaxirati walihraadi an addunia wa taamuruna bi an najtaniba nawaahiyahu wa namtasila awaamirahu wa tadulluna ala anna alxayra kullahu fi linqitaaci ila allah والإعراض عن كل ما سواه والمسارعة إلى ما ينال به رضاه وترك كل ما يشغلنا عن ذلك من الفوائد الفاسده وكل ما لم يكن فيه فائده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 لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الممات نفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وهدانا وإياكم الصراط المستقيم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 tadakkaru qawla nabi sallallahu alayhi wa sallam kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil wa qaal igtanimu xamsan qubayla xams xudu min xayaatikum li mawtikum wa min sixatikum لسقمكم ومن غناكم لفقركم ومن شبابكم لحرمكم ومن فراغكم لشغلكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا wazinuu bi miizaani shariati jamiia amaalikum famaa waafaqa minhaa qistaasa shariati faduumuu alayhi wamaa xaalafahu fatuubuu minhu wajtanibuu waalamu anna maa fi laaxirati xayrun wa abqaa وعليكم ألا تزالوا خائفين وجلين مشفقين من خاتمتكم لأنها غير معلومة لكم وخطرها باق مع الحياة جعلنا الله وإياكم mimman sabaqat lahum min allahi alxusna amin yaxfirullahu lana wa lakum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 أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة منصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمعون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 الله الله asalaamaaleykum.